Ndakaaru fas yéene waajal jërë ngeen jëf rafetlu di seen ànd ak télévision Futur Média dañuy dem ba rajo Futur Média topp corniche bi fekk fa Babacar Fall mu dalal ganam Ibra Ndiaye cadre aviation euh, civile du PCA AIBD assistant service nekk tamit cadre APR bokk ci directoire parti boobu di APR ñu dem rajo Futur Média ci pàcc bu njëkk ba tey ñaareelu pàcc bi juróom-ñetti waxtu ñu dellu si bu soobee borom mais wa razaqu dul quwwatul matin boo paree nga teg ci yaa fattaaxu benn yoon incha allah lu marché bi naqari naqari di nga yëg ni sunu boroom gestu na la incha allah dangay ubbee inna fatahnaa laka fathan mubiin soo toog mubiina soo toogee ci kaw euh, ci place bi nga wax inna allahu wa razaqu dul quwwatil matin juróom-ñaar yoon teg ci yaa fattaaxu benn hmm. yoon Hadj Babacar. jërëjëf oustaz Mor. RFM matin RFM matin. émission bi yee waa Sénégal. RFM matin 7 euh, ñu dalal sunu gan Ibra Ndiaye salaamaaleykum. maaleykum salaam El Hadj Babacar. yow euh, cadre nga ci wàllu dawalum avion aviation civile rawatina. waaye yaay itam euh, président conseil d' administration euh, banqaas bi nga xam ni moom la ñuy wax AIBD assistance service ci wàllu politique cadre nga ci APR bokk itam ci euh, kilifteefu parti boobu nga xam ni Macky Sall moo ko jiite politique sax la ñuy tàmbalee waxtaan wi. wala ñoo dem ci coowal avion geek lay yi nga xam ni gouvernement bi lay na ko te am nañu ci d'accordul politique boobu mooy. li m di mbootaay boobu nga xam ni parti opposition yi euh, fës nañ ca te sosu woon ci coowal Ousmane Sonko si démb génne nañ euh, seen xayma ci li fi xewoon ci weeru mars ak bakkan yi fi rot euh, ci tënk nee ñu bakkan bu fi rot ak loraange gu ci am rek Macky Sall la ak yéen loo ciy tontu. waaw Alaaji Babacar maa ngi lay sant euh, di la gërëm ci invitation bi di sant donc euh, mbokku auditeurs yi nekk fii di déglu RFM ak TFM yëpp euh, di sant donc suñuy xarit yi ñuy déglu aussi damay préciser rek benn affaire ci présentation bi du ma cadre ci wàllu dawal avion waaye cadre laa ci wàllu management des aéroports et des compagnies aériennes donc peut-être précision boobu am na solo. li ci des nag euh, damay ñëw ci li nga wax noonu wàllu politique la sax mooy euh, mémorandum boobu nga xam ne m dañ dañ ko génn démb. c'est vrai que moi je l'ai reçu un tard mais je l'ai parcouru parce que nee nañu seen mémorandum bi cinquante cinq page la bi ma xoolee mémorandum bi ma ma ma ma dawal ko. damay gis que ne page benn page numéro un parce que c'est le numéro d'ordre jusqu'à la page seize ils ont parlé de complot. voilà élément de complot la ñu wax ci loolu ba page 16 boo jëlee page 16 ba page 25 finalement presque foofu la ñu wax mémorandum am na te loolu 9 pages la mais ci biir 9 pages yooyu da ci am élément yu bëri sax dañu dellu siwaat ci complot bi soo jëlee page 25 ba page 55 ay annexe la annexe nag boo ko dégloo bokk na sax ci document bi waaye du loo xam ne yow yaa ko liggéey maanaam da jël ay référence ci yeneen nit ñoo xam ne dañu bind dañu xalaat loolu ci pagination bi jàpp naa ne que ku dem def fag du droit wala nga jàng wax naa ne pagination bi annexe yi ci boole pagination donc seen dokument bi c'est un document de neuf pages comment de intellectuels de cadres sérieux nu ñu mën a toogee bi bind ay weer ne dinañ génn document boo xam ne bi sur neuf pages loo xam ne nit ku toog benn bëccëg war nga ko mën a bind loolu moo lay wan manque de sérieux bu nekk ci ñoom mais loolu dafa am leneen lu muy indi ci firnde xam nga en fait Sénégal dafa am fu mu toll foo xam ne fii booy aspirer pour diriger réew mi dafa am taxawaay boo xam ne da ko war a am man su ma déggee parce que am na ci ay éléments yu bëri Babacar am na ci lu ma la jotoon envoyé temps yële bi crise bi amee affaire u Sonko beeg mel noonu un docteur parce que euh, il faut que ma cité ko mooy Cheikh Tidiane Dieye euh, PSA fait d'identification de la fii benn exemple bu ndaw la mais loolu day wane day refléter ñoom seen personnalité ñu mel noonu ku leen bëgg a dénk réew ëllëg man je pense que loolu war na daw yaram ñu ne par exemple déclaration xale bu jigéen boobu bi mu koy def dafa changer date de alors que la dame a fait en fait un jugement boo xoolee référence su pièce bi date jugement bi moo ci nekk yow boo dee cadre nga ne yow professeur nga wala docteur nga ba pare yow xamoo sax la constitution d'une pièce d'identification loolu c'est terre à terre mais éléments wane que manque de sérieux bu nekk ci moom te loolu dafa reflété wu ci document bi man de jàpp naa ne que document bi en cinq minutes je peux parcourir le document parce que li a au moins huit pages yoo xam ne ay turu nit lañ ci bind. waaw mais parcourir. waaw d'accord mais contenu bi responsabilité bi nga xamante ne teg nañ ko ci ndodug régime bi. non la responsabilité ñoom heureusement qu'ils ont signé ce document def nañu list ay nit ñoo xam ne ñii ñii dañu dee ñii ñu gaañ ñoom ñu signé ko cela veut dire mais dañ leen a tontu parce que. Ah. Euh, Sidiki Kaba ministre forces armées defoon na fi euh, conférence de presse moom it di tuumaal ne opposition bi moo waddal bakkan fi wadd moo indi loraange yi fi am ñoom it ñu tontu rek. waaw xam nga xam nga tontu nañu. waaye dama ne bu ñuy mesurer. affaire nga bëgg a weddi ñoom li ñu wax nangu yow li ngeen wax yéen. no dama ne la responsabilité des individus. c'est-à-dire kan moo appelé à l'insurrection kan moo woo population pour di wàcc ci mbedd mi manifester wu. c'est-à-dire il faut que bu problème amee aussi ñu xool source bi fan la jógee parce que ça c'est une responsabilité civile yow yaa ne nit ñi wàcc leen ci mbedd mi ngeen manifesté wu bu ngeen manifesté am na ci ñoo xam dañ leen gaañ ña leen gaañ gis nañu ay mercenaires yoo xam ne yi dañu leen ay fétali tiré du ñu armé loolu man gis nga teg naa ci sama bët yéen gis ngeen ko ci sama bopp man je donne un exemple le jour je vous assure yéen gis ngeen Auchan nit ku jël fétal di tiré à bout te kooku du armé cela que ñi dee en responsable mun naa nekk APR Euh, dara dara wóoru la ci. jamais du nekkul affaire jamais wóoru la ci dara wóoru la waaw Babacar. waaw ah. Babacar dañ dañuy waxtaan parce que man li may wax nii wax dëgg yàlla jàpp naa ne que ñoom bu ñu wootewul woon manifestation. bu ñu mën a def ay mbir di ko jiñ bi. loolu loolu APR yaakaar bi yooyu mën na ne APR yaakaar bi ma xam man. ña ma fa jot a xam gisuma ci nit ku violent ku egg ci niveau boobu gisu gisuma ko ci biir su ci amoon it man du ma nëbb man xam nga ne xel dama direct damay wax li ma xalaat donc loolu jàpp naa ne la responsabilité leur incombe et que am na ci ay références yoo xam ne man sama bopp dem naa benn moment je vous assure j'ai rencontré des gens avec des bouteilles avec des sacs benn manifestation langue bi ñu doon làkk c'était même pas en fait une langue sénégalaise man je me suis posé des questions en réalité j'ai dit à gens là que yow graw nga non li may wax billa dama ne Babacar dama ne man je suis originaire de Tamba damay làkk politique jarul yenn yi tamit. non dama ne hmm? politique jarul yenn yi mais bu responsabilité amee nit dee mais benn bakkan rek bu faatu rek dama jàpp que ne dafa dafa dafa am dafa am dafa rëy ci réew. ku koy ki ko indi nag il faut que mu accepter cette responsabilité mais ñoom actuellement document bi li muy wane ils sont en train de se justifier dans la rue à travers des documents alors que mbir mi c'est en justice justice la ñu war a dem raxas seen bopp te ñoom document bi plus li may comprendre ce sont des cadres Pastef ñoo toog bind. il faut que Cheikh Tidiane Dièye boobu mu xam ne moi je le considère aujourd'hui comme un cadre de de Pastef c'est un politique camoufler ñun dañu doon politique doon ay cadre mais dañu accepter engagé non moom nëbbul ni day politique daa am daa am euh, kuréelu politique am loolu kay leer na. waaw dama ne dafay politique na dem milité wu ci Pastef mu défendre Ousmane Sonko am na am na mbootaayu boppam. waaw lu tax nga bëgg mu dem Pastef. waaw dama ne man bu amee mbootaay na défendre ay idem ak ak partem mais su fekkee ne moom day bind au nom de Ousmane Sonko mais document bi presque dans sous ce document là on ne parle que de de Sonko et des manifestations. loolu dafay wane lu mu wan firnde ne que ñoom ils sont en fait en allié avec Sonko sur ces ces ces questions là. mais mais bu ñu demee ba egg fii bii nii est-ce que du manque de volonté bu nguur gi la ndax déjà euh, bu ne newoon ne ay commission d'enquête euh, euh, commission d'enquête indépendante bi nga xamante ne ministre des forces armées annoncé woon na ko ba léegi kenn gisul benn acte bi ñu posé pour commission boobu ñu taxawal ko ngir mbir ma leer. waaw ba Georges lay sant parce que question bi nga wax am na solo mais xam nga temps de la justice man mënuma ko maîtriser justice moo am ay éléments. de de de preuve yoo xam ne moom lay cherché wala moom lay wër pour mën a dérouler agenda man mënu ma justifier seen agenda te fii lu ci nekk il faut que ñu xam ne. les non loolu justice ngay wax waaye commission bi euh, dañ ne woon sax euh, muy kuje gi muy société civile dañ ciy bokk. waaw dama ne xam nga en fait ñoom yombaluñu mbir mi parce que boo xoolee affaire bi li ma ko jàppee mooy nit ku bañ ne du ma wuy ji loolu man maa ngi koy door a gis Sénégal en réalité. mais loolu dépassé nañ ko wuy ji na. non ah. damay ni mu wuy jooy ñëpp xam nañu. li ci li ci ah. xew yëpp xam nañu ko. Ah. woo ñu leen nga ne doo dem après créer benn mouvement insurrectionnel mu am ay nit yu dee après nga wàññeeku ne damay wujjit en réalité warul woon demee noonu ku ñu convoqué da nga war a dem toog avec des preuves parce que suñu lay accuser surtout li ñu koy accuser ni mu grave ku ñu ko accuser da nga war a yàkkamti ñu woo la bu dee dañu am ay éléments yoo xam ne yu wóor nañu teg ko sa ndodd bu ñu amee boo amee nag pour se justifier nga justifier wu nga setal sa bopp mais demeewul noonu donc mbir mi ci ca njëlbeen ga donc lañu la ñu jaxase carte gi donc vraiment cette responsabilité je le dis encore une fois de plus ils sont entièrement responsables des morts et des personnes blessées lors de ces manifestations il faut qu'ils portent cette responsabilité bu ñu daw mbir mi loolu la léegi ñu euh, euh, ngeen ne nañ samp commission enquête yow nga toog fii tuumal leen mais tëjlu leen dama ne ñoom ñoom xam nañu xel ne ñoom ils sont entièrement responsables de ces ñoom ñoo la ko gën a xam parce que ba ñu wootee keroog conférence de presse moi j'ai suivi ça parce que j'étais de l'autre côté ma toog déglu bi Sonko wax a pare ma mais ça c'est très grave dans un pays qui se dit démocratique parce que tey bu fekkee ne que yow dañu lay accuser yow nga ne yow doo dem wuy ji ba pare nga ne nit ñi génn leen manifester mais lu ci xew mais tu portes la responsabilité moom xam na lu tax exactement ñuy daw ak temps bi. pour léegi Sonko moomu démb am na ci ndaje bu mu bokkoon bu doon am ci Togo euh, euh, euh, ndax yoon mayu ko mu génn mi. ñu doon waxtaanee wàllu CFA ak euh, xaalis bi ko war a wutu ñu naan ECO euh, profité naa euh, xosiwaale Macky Sall avion bu bees bi muy waaj a am ne am réew mënut ami bor bëgg ñu baal ko bor yi ba noppi muy jël jëli milliards yu bari di ko def ci wallu avion ngir nax su boppam loo cay tontu. waaw xam nga Sonko il est dans son rôle dans son rôle d'opposant man dama doon ndaw ñoo xam ne ñi je vous le dis en en deux mille deux mille deux lorsque les Barthélémy Dias et autres ont accepté d'aller militer au parti social qui venait de perdre le pouvoir mais dama leen na dama leen fonk dama leen naw parce que dama ne ay ndaw lañ gëm nañ seen bopp Sonko opposant la il cherchera des éléments pour blanc pour pour pour en fait porter la responsabilité ou bien yàq euh, euh, turu gouvernement bi mais li ma mën a wax foofu man côté boobu sax dama ne aspect politique bi dama ko ciy teg ne keroog wax naa ko bi ñu ma déggee ne jënd nañu avion ma dégg bruit bi j'ai fait un texte sur ça ma ne leen ñun aviation la ñu nekk te suñu temps yëpp dañ ko ci dañ ko ci passé am na ci loo xam ne pour man ça ne devait même pas soulever bi dans parce que luñ li ñuy wax mooy tey Euh, boo xoolee situation bi parce que euh, la euh, la pointe Sangomar a été donc réformée vers les années 2007 avec donc l' accident qui est parvenu au niveau des îles Majorque foofu li ci xew mooy benn avion boo xam ne dem na ba am presque lu ëpp 20 ans ñu dem di ko defaraat def ci lu mat 20 milliards. man bañ ko defaree bokk naa ci ñu publier boo duggee sama page Facebook à l' époque j' avais il n' pas question ñuy réformer di defaraat avion boo xam ne bii dafa am 20 ans bi ñu ko defee 5 lañ ci teg avion bi di naaw tim en chute libre la avion bi wàcc ak président de la république d'un pays avec des ministres à l'époque ministre des transports nekkoon ci mais loolu musiba boobu Sénégal bu ko gisee benn yoon ñu dund ko est-ce que war nañu accepter waat ñun ñu dundaat situation mel noonu avion bi ñuy wax Pointe Sarène c'est un avion qui a été donc euh, livré en 2000 donc en 2020 déjà l'avion a eu 20 ans dama ne avion bi bu amee 20 ans jàpp nañu ne que dans un war nañu am benn flotte avion bu bees boo xam ne bii danañ mettre en sécurité le chef de l'État parce que chef de l'État nee naa bakkan yëpp yem mais quand même un chef de l'État du nit koo xam ne kii nit ku ñu war a caaxaane sécurité am la seen serait que pour ça man jàpp naa ne ci am beneen affaire bi dégg naa ñu naan woy euh, priorité ma ne priorité dafa am te pour bu bu ñu newoon sax opportunité de la dépense mun naa comprendre mais partout on parle de priorité priorité mais priorité bi bi ndaw ñi jógee taxaw dafa déglu fi leen déglu mais je mets 300 milliards à votre damay damay créer liggéey La semaine dernière, ce week-end-là, Prodac, d'ailleurs, je salue mon ami, frère Pape Malindour, il a fait insérer 400 jeunes au niveau donc de CFA actuellement ñu ngi def seen formation en immersion bu ñu génnee ay techniciens la doon ku ci nekk dem sa gox mën a investir foofu loolu jàpp naa ne ci création d'emploi la bokk. yi ci des nag tey man ajuma bi jàll dama toog sama bureau ba 12h ma taal sama oto dem julli ji jumaa yi Touba li ko waral mooy président dafa defar ay yoon yoo xam ne foo bëgg dem ci Sénégal di nga fa dem rega xoolal oto pont yi nekk biir Ndakaaru Ndiaye mais loolu. dañu naan nañu prioriser les dépenses mais defe naa ne sécurité président de la république aussi. ci priorité la maa di nga limaale euh, hôpital Saint-Louis ba nga xam ne amul ay piqûre ak alcool fi ñu toll nii. waaw dama koy lim mais ma comparé ko ak li nga xam ne président dina ko inauguré dans deux jours maanaam à partir de samedi muy hôpitalu Kaffrine hôpitalu euh, euh, Kédougou ak bi nga xam ne Touba Mbacké boo fa demee seen hôpital d'ici décembre dinañ ko réceptionné Sénégal nag. réew yëpp la. munoo koy léegi bàyyil wax. waaw sëñ yaa ngi meeting fi mu toll nii bàyyil George mu wax. <laughs> Euh, léegi roplaan boobu 60 milliards. est-ce que gënul woon sécurité pour sécurité euh, ñun am nañ suñu compagnie yu bopp. njiitu réew mi bi nga xamante ne buy woya buy wajaas mën na cee mën na cay dugg. waaw loolu ça aurait des économies. loolu option la mais xam nga man sax dama ne réew mu gën boppam warul accepter un président sax di louer ay avion parce que boo louer avion. ki lay loué ñu koy waxee en anglais le leasing da jox équipage bu ñu ne équipage hôtesse yëpp ci la ñu bokk imaginez vous yow sa président tey muy voyager ña koy jox muy lekk ki naan muy doon ñoo xam ne xamul fu ñu jógee loolu benn la affaire boo xam ne ci sécurité toujours dafay ñëw ak sûreté wu euh, euh, état bi beneen affaire bi ci des compagnie bi mais président maa ngi koy wax keroog nee naa leen compagnie Air Sénégal mooy l'unique compagnie d'ailleurs en Afrique dans le monde boo xam ne bi période crise muy nekk di recruter parce que l' état a injecté plus de quarante cinq milliards pour jàppale leen état actuellement nii ñi ngi nekk di jël ay équipage ñi ngi nekk di récupérer ay hôtesses de l'air te alors que les autres compagnies sont en licencier loolu c' un effort considérable bu sénégalais yi war a gis d' accord naa ci yow nag tey que tey par exemple compagnie Air Sénégal président waroon na ko mën a jël dem voyage loolu c'est une option mais bu fekkee ne réew dafa toll fu mu toll tey Air Sénégal mi ngi war a acquérir ay avions dans dans yoo xam ne amul avion présidentiel. bu njiitu réew ma soxlaa tukki compagnie nationale bi moo koy jox avion mu dem. loolu gënuñu woon yomb. waaw dama ne loolu option la. mais bu fekkee ne que ñun dañu toll ci niveau boo xam ne bi déjà Air Sénégal ñun ëpp la bëgg créer au niveau donc de d'ailleurs j'ai amené le mémoire que j'ai fait sur bàyyi leen loolu bàyyi leen loolu ay ëpp ay naan waaw dañoo bëgg aéroport bi avion aéroport bi boo xoolee tableau arrivée départ da ngay am sax kerse Euh, avion yi fii wàcc néew na yi fii déparé néew na te bu ngeen ko sànceeg léegi yéen ngi fattu nopp nit ñeek waaw du dañoo bëgg aéroport yu nekk ëpp nekk ëpp euh, vraiment. Euh, doy na daal Babacar xam naa ne da ngay provoquer rek moi je vous comprends. non même a tableau arrivé départ. damay ànd ak yow munoo fii pour nga vol par jour sax. lu lu jafe la dama ne damay ànd ak yow ci li nga wax noonu mais xam nga lan moo koy justifier crise bi moo tax tey par exemple flotte bi Sénégal li mu réalisé. en matière de performance durant une année amul presque pays sous région benn bu ko ci def fi may bëgg a ñëw noonu en 2019 il faut que mu am point de référence en le trafic était passager laay wax 2 millions passagers pour l'aéroport AIBD et on devait atteindre les 3 millions même fin mais début crise ñëw bu crise ñëwee on est resté des mois où il y a même pas eu de trafic dans tous les pays du monde kon ñun Sénégal bu ñu demee ba tey naan na ñu ngi compter parce que on est à un taux de 60 pour cent par rapport à 2019 le trafic est en train de reprendre et loolu dafa li ko indi benn affaire la mooy une vision mooy lan benn aéroport flambant neuf beneen bi mooy compagnie aérienne digne de ce nom léegi nag li ci des mooy lan créer de situation ay condition yoo xam ne yi sénégalais yi dinañ voyager ak ñi nga xam ne dañuy voyager mën a jaar Sénégal pour mën a def transit pour mën a dem jàpp naa ne conditions yi tey c'est réuni parce que l'État a mis les moyens nécessaires et le président l'a dit il suit de près l'évolution de cette compagnie et de l'aéroport international AIBD dafa nekk ne loolu en tant que sénégalais ñun loolu dañ ko war a remercier dañ ko man damay voyager lu bari mais boo ñëwee aéroport Dakar nga comparer ko ak yeneen pays mais da naa man samay promotion heure bu ñu ñëwee Sénégal daw autoroute dem aéroport nekk extérieur ñun ay problème rek lañ y a de yoo xam ne y a des goudrons yoo xam bañ ko fa defee depuis de quarante ans ils ne l'ont pas changé du ma réew. ma tey tey bésu tey bi rek 17 17 départ am ci avion bi te da nga ciy boole euh, avion yi dem Ziguinchor maanaam biir réew mi. waaw tiitaroo gi ngeen war a bàyyi. Babacar Babacar xam nga maa ngi bind yow par période da may suivre lu bëri ci li may wax gis nga bi crise bi commencé. nee leen Sénégal bu ñuy jugé la crise nag bu amee c'est une situation exceptionnelle boo xam état daf koy jël en charge loolu ay difficulté mënul ñàkk te man jàpp naa ne tey li ma la mën a wax boo xoolee mangé les en démb laa la wax de chiffres yi ñu am on à peu à 60 pour cent du trafic de 2019 alors que 2019 le Sénégal était à peu à 3 millions de passagers mais loolu c'est salutaire donc ñun mënuñu juger en fait affaire en fonction même près nombre de volets am na solo mais nombre de passagers yuy tukki loolu daf ci gën a am solo parce que loolu mooy permettre état di am ay redevance loolu mooy permettre compagnie ak sociétés yi nekk ci aéroport di liggéey di développer di créer ay emploi mënoon nañ dugg ci société yi ce que l' état a créé depuis donc 2000 l'ouverture de l' aéroport 2017 ba léegi y a la société Teranga qui a à peu près 1000 agents aujourd'hui société bi nga xam ne fa laa nekk PCA muy 2AS ils ont fait la fusion entre AHS et SAGES. mais mais mais au même moment xiiroo ki ngaayoo ci yéen seen biir waa euh, euh, AIBD bu ça a même coûté euh, au directeur de l'époque son poste. quel directeur de l'époque je ne comprends pas. Xavier Marie. non loolu loolu ñoom seen mbir la parce que man nekkuma laas man. je suis à. AIBD waaw mais aéroport bi la ñu wax waaw waaw aéroport bi la ñu wax su fekkee ne que ñoom. gis nañu ne que y avait des fautes de gestion au niveau donc de AIBD ou bien au niveau de l'AS que ñu ne relever le directeur général et c'est tout à fait normal et puis ne quand tu es directeur général pendant trois ans wala quatre ans cinq ans war nga mën a céder quand même la place keneen ñëw jël continuer liggéey man je pense que c' dans l'ordre normal des choses dem bu benn moment gis ne que peut-être il a il il avait atteint un niveau boo xam ne waroon nañ ko changer ñu changer ko vraiment loolu je pense que dans tous les pays du monde ça se passe comme ça et d' plus que c' pas un sénégalais. jërëjëf Ibrahima Ndiaye euh, cadre aviation civile euh, ñu lay gërëm ci waxtaan bi gërëm Georges ziar Astou Mbène ak gaa yëpp ca geneen wàll ga ñu yendoog jàmm. maa ngi lay sant ba. jërëjëf Babacar jaajëfal la jaajëfal euh, Georges Déthié Diop Moussaoui Fallou jaajëfal seen ko euh, genn bàyyi leen ngeen xuus ci xibaar yi fi tamit juróom-ñetti waxtu jotu ñu daal di fas yéene xuus ñaareelu kaas bi.